fa daan bamba nasaraan ba wiiri wiiri jinne ya woon dañoo mujj jébbaloo liggéeyal sëñ bamba liggéeyal sëñ bamba liggéeyal sëñ bamba bamba aouzu billahi alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyyaka wa iyyaka nasta'in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 Diop Xuru Mbàkke tey moo nekk suñu invité ci jotaay bi nga xam ci ni mom ngeen baxo di am sen télévision RMB TV waaye nak di dem ba Touba tamit di nuyu Khalifatu am di tarikhatu Mouridiya Serigne Mountakha Mbàkke yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam te yokki leeram di dem ba Tiwaawan di nuyu Serigne Mbaye Mansour juma ji nga xam ci mom la nal yàlla na ko suñu borom egal ak sago yalla dolli ay leram ci barke Seydina yagal ko fi lol di ñaanal tamit ki nga xam ci nii mooy sëñ Moustapha Mati lay di ko ñaanal baax xalifa Cheikh Ahmad Lamine Baara Mbàkke borom kàddu geeg Mbàkke Kajoor ak Jumaada yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam ci bisu Mbàkke màggal Mbàkke Kajoor gii muy waajal yàlla ko suñu borom defal ndam sëñ Moustapha Mati lay yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam dem ba Touba tamit di nuyu suñu sëriñ suñu lépp kooku mooy euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Mbàkke ibn Sidi Mouhamad Mbàkke di nuyu tamit ki am ci moy suñu serigne wax deug yalla koku moy serigne basirou Ahmed Bara ñu koy ñaanal yalla bu baax serigne basirou ma ngi lay ñaanal magal gi nga am ci moy magal sa màggalu maam gi muy magal Cheikh Ahmed Lamine Bara mbacke yalla suñu borom defal ndam ak kep ko xamante ni sa rak nga wala sa taalibe la wala képp koo xamante sa njabot nga rek yalla nako suñu borom defal ndam di nuyu baax tamit serigne Abdou Aziz eh, mbacke ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baaxa ba diko ñaanal yalla yalla na yàlla dëgg serigne mbacke fàttewuñ la ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu xarit suñu soppee muy sëñ Abdou Aziz euh, Fall waaw ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay nuyu di nuyu bu baax tamit ki am ci ni mooy sëñ Abdou kërim di eh, doom ci soxna na Mbàkke ibnu Sëriñ Ahmed Baara di kontaan baax ci bis bii nga xam ci moom lañ ko tuddee woon ca njaareem di ko ziyaara bu wér a wér di dem ba jàmb gan nag di nuyu monsieur le maire Alioune Badara di ko nuyu bu baax a baax di dem ba Thiaroye tamit di nuyu monsieur le maire Mbaye Sène di nuyu tamit honorable député docteur Assane Ka ñu ngi koy nuyu bu baax docteur Assane Ka ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam docteur Assane ñu ngi lay nuyu honorable député di kontaan baax ci yow di dem ba euh, jàmm gën ak fépp rek bàyyuñ kenn wax dëgg yàlla di nuy képp ko xam ci yaa ngi topp jotaay bi di nuyu suñu baay bu baax kooku mooy suñu baay Ahmadou Diop téere ñu ngi koy nuyu bu baax yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam di nuyu délégué quartier Soxna Fat jóg ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu délégué quartier Assane Sall di nuyu Naar Fall bu baax a baax a baax mouvement dëkk sa gox suñu xarit suñu soppee di sant képp ko xam ci ni yaa ngi jàkkaarloog seen xarit seen soppe Mouhamed seen rek ñu ngi leen di nuyu di nuyu sama yaay sama xarit ay dagay masaar ñu ngi lay nuyu baax mbuuba jali di nuyu soxna yi nekk ca kër ga suñ jiitalee soxna màgge rek dina ko teg ci loxoy xale yëpp di nuyu baax Oustaz Diané tey ma dalal xaritam muy sëñ Mamma. Mm. di nuyu tamit ki nga xam ci ni mooy Ndiaga maa ngi koy nuyu baax. tey nag émission bi nag dama ko jël rek tuddee ko tamit suñu sëriñ bu baax wax dëgg yàlla muy ku baax a baax kooku mooy ki nga xam ci ni mooy Cheikh aadama seen ñu ngi koy nuyu bu baax jàmbaari Cheikh Mouhamadou Fadal borom dindi jàmbaari sëñ Abdou Karim ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax. Cheikh Adama maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ki nga xam te ni mooy soxna su baax soo soxna Adama mooy colonel ñu ngi lay nuyu baax a baax di la jox sa wàccuwaay ci bis bu rëy bi nga siyaare ji woon sëñ Abdou Karim borom makarima axlaax ci teraanga yu yi nga ñu defal Cheikh Adama seen ñu ngi lay siyaare baax seexum digal di di la jaajëfal baax di jaajëfal sa taalibe yëpp rawatina sëñ Xaadim Cuun ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo aju ci yow rek ñu ngi lay ziyaare bu baax di ziyaare sëñ Abdou Karim borom makarima axlaax di ziyaare tamit wax dëgg yàlla ki xam ci nii kenn la ci ñun tamit wax dëgg yàlla muy Serigne Jili Abdou Fatah sëñ Jili Abdou Fatah ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax ci bis bi nga dëgg mal muy bisu sant moom ma du faadal di la ziyaare wax dëgg yàlla muy suñ sëriñ bu baax di jël bis bi tamit di la ci ñaanal yàlla na la yàlla defal ndam ci li nga ci séntu yaa ko xam yàlla na suñu borom defal ñu ngi ci tamit seen télévision RMB TV di nuyu suñu xarit suñu soppe kooku mooy Serigne Bamba Mboup ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam di siyaare baayam bu baax boobu di ji Babacar Mboup ñu ngi koy siyaare mu dem siyaare ji bayti laay la xaraam di siyaare suñu yaay ju baax jooju wax dëgg yàlla di ko ñaanal baax a baax bu ba jali kontaan nañ tey nag Serigne Mama tey bëggoon naa la siyaare nga siyaare ma mbokk waa Xuru Mbàkke yëpp ndax wax dëgg yàlla yow ku baax nga yow yow ambassadeur Xuru Mbàkke nga maa ngi lay siyaare sëñ Mama bisimilah. auzu billah mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar mm-hmm. di la nuyu bu baax a baax sëñ Mouhamed Sène mm-hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal mm-hmm. di tàmbale ci nuyoo bi nag sëriñ Mountakha xalifa général kullu murid yàlla na fi yàgg te wér di nuyu baax sëriñ am ni Moodu Mbende xalifa général kullu Baye Fall. Mm-hmm. yàlla na fi yàgg te wér. amiin yàlla. noonu la ñuy nuyu sëriñ Abdou Roqay Fall xalifa sëriñ Mor Talla Fall ak mm-hmm. mboolem njaboot ko sëriñ Mor Talla Fall. Mm-hmm. Ndaam Fall sëriñ Abdou Sini kenn. di siyaar bu baax a baax a baax njabootu uh, sëriñ Baye Jaxate uh, bu ñu nee sëriñ Abdoulaye Jaxate xalifa sëriñ Baye Jaxate rek yóbbaale na njabootu sëriñ Baye Jaxate gépp Eh, di siyaar waa Xurum Mbàkke gépp mhm. eh, nuyoo waa Xurum Mbàkke nag su ma ko tegee ci loxo sëriñ Baye Mbaye Fall sunu mag mhm. dan na ko jàllaleel ci biir dëkk bi lépp ndax dañuy bañ a lim di juum mhm. ñu ngi nuyoo waa Touba alam ga bu ñu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxol sëriñ Sidi Ndiaye seen xaadim dana ko jàllale ci bokki taalibe eh, yëpp rek di nuyu baaxat sëñ Moustapha Diagne Eh, suñu rak la eh, suñu suñu suñu lepp la mhm. di nuyu bu baax Xuru bakki groupe deug suñu mhm. deug ñom dañ ma xam mhm. ak ñi nga xam ne daal ñoo dëkk Xuru bakki ñepp rek ñi ngi leen di bëgg di leen siar bu baax baax noonu it la wa jamm gën gep mhm. mhm. bu ne waa jàmm gën di dem ci serigne Sidi Mbàkke alcorane ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siar mhm. yalla na fi yagg te wër mu mel ne moom mi ngi waajal bis bo xam bisub siar la le 10 bi ñu jëm di don dimanche bi di ñëw serigne Sidi Mbàkke alcorane ndeysaan eh, mu ci woo bokki jullu yeeg bokki taalibe yëpp rek di siar serigne Lamine Diouf bu baax baax ak li nga xam ñoy talibé serigne Sidi alcorane yëpp di nuyu sama mam Cheikh Diop Thiaroye geej di nuyu mère ñaan Aliou ndjay soxna Rama ak euh, soxna dikku si sama soxna. ak mboolem njaboot gi rek. ak soxna si mi ngi fi. waaw mi ngi fi waaw ak soxna Xama Njaay Kër Masaar. Eh, bàyyiwuñ kenn. Mhm. Eh, noonu tamit la ñu nuyoo suñu nijaay Papa mhm. Diop. Mhm. Moussa la maire. Mm, ancien ñu ngi ko nuyu bu baax. di nuyu baax sëñ Pape Diaw. ak soxna Rama Diaw ak njaboot gi ñëpp rek. waaw suñ suñ suñ nijaay jooju moom ku baax ci ñun la sëñ Pape Diop. ndeysaan ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ñaanal. Mm, fan wu gudd. noonu la ñu nuyoo Oustaz Sène sëñ Assane tey Moussa euh, Njaga Sène ak waa atelier bépp rek bàyyiwuñ kenn mhm. euh, bu ñu limee daal xam naa ne mhm. dañ juum dañ dun matal waaye daal xam naa ne foofu ci nuyoo mhm. euh, jàpp naa ne doy naa yem kon ñu ngi tudd baax tey jéglu waaye ñu ngi siyaar baax Moussa la maire Bada Bey maa ngi tudd Alioune Badara Bey Alioune Badara Bey ndeysaan ñu ngi koy siyaar ku baax di suñu xarit Moussa Fall Moussa Fall honorable député waaw njabootu ko suñu Isis Fall gépp nag bu nee sëñ Bada muy mm-hmm. doomi soxna Maam Fall moom sëñ Asis lii mu yóotu mm-hmm. nga xam ne dafa war a dem ensemble Maam mm-hmm. a doon député ah, de yaa ngi koy campagne waaw di sëtu kii sëñ maa ngi koy tuub nag <laughs> waaw na ko ñëpp ñaanal kon daal ñu ngi ñu ngi jégg baax a baax jërëjëf ah, a baax mais bëggoon naa xam maanaam tey sëñ ku suma bëggoon a xam sëñ maam ma xam naam am nañu xam sëñ maam ma mm. man su ma bëggoon xam sëñ maam ma waxtaan wi muy waxtaan mm. fan la ko jëlee li muy waxtaan ci sëriñ bi ak xuru mbàkke mm. ak taarixu mag ñi ah, xam nga sëñ Amet mm-hmm. maam bu ci xuru mbàkke mm-hmm. eh, ñu njëkkee ko yàlla dafa dogal mm-hmm. mag ña nga xam ne ñoo fa nekkoon topp sëriñ Mbay Jaxate dafa am ñu nu ci fekk ñëpp nag fekkuñ ci waaye ñu mujj ñi fekk nañu ci ndeysaan mag ña fa nekkoon toppoon Cheikh Ibra Fall ñëpp mhm. fekkuñ ci waaye ku mujj ki mhm. fekk nañu ci mhm. ñu ñaan ko Mamadou Gueye fekk nañu ci ndax fekkoon na jamono Cheikh Ibra loolee nag li ñuy waxtaan ci taarix Xuru Mbàkke ci ñoom lañ ko lañ ko lañ ko roote ndax seenu nekk di suñu tuur tànk dañ leen daan jege eh, ne te nit nag boo ko dee jege daanaka lam xamoon rek lu ci ëpp mën nga koo xam man suñu amet waaye maanaam tey nag damaa bëggoon nga indil ma euh, Serigne Touba. ak mag ñi. ak Cheikh Mat Lamine Baara Mbacke tamit comme que ñu ngi waajal bisam bi nga xam ci nii ak Mbacke Kajoor. muy bisu Mbacke Kajoor taarixu Mbacke Kajoor. loolu laa bëggoon tey sëñ maam nga duggal ñu ci. waaye tamit maa ngi koy may bu baax a baax euh, ki nga xam ci ni mooy njaboot sëñ Baara gi yëpp. bàyyi ma kenn. ki nga xam ci tamit suñu sëriñ la di suñu xarit wax dëgg yàlla muy jàmbaar lool ci biir kër sëñ Baara. kooku tamit ñu ko koy may muy gaynde baara waaye di ko may tamit ki am ci nii mooy sëriñ abo sëriñ abo mi nga xam ci ni wax dëgg yàlla jàmbaar la lool ci biir kër sëñ baara yàlla def nag muy kilifa gu mat kilifa gu am solo kooku di mag ci sëriñ xaadim muy sëñ abo mu sëñ moodaay sax moom sëñ baara di nuyu baax sëriñ xaadim euh, mbàkke moom sëñ moodaay sa bisam bi ñuy waajal ñu ngi ciy jokkoo waa RMB TV wax deug yalla di jambar lol momit ndax wax deug yalla barki dembo njaay rek lañ dalal fi ay talibem yeb di nuyu mam Ousmane bu baax baax mi ngi ci waccay seigne Abo lay nuyu di nuyu madame Diaw bu bah ba baax madame Mbacke soxna Ndumbe Diaw ñu ngi koy nuyu baax a di sa soxna su baax sos ñu ngi koy nuyu di contane baax baax ci yow seigne Abo waye bu gona nak nga duggal ñu bu bah bah baax ci ñu xam kan moy ndax yow ñu melni yow dañ leen ni soxla ci télévision yi mm. ndax seenum jangal daa am solo kon bismillah seigne mam euh, sëriñ Ahmed mm. ñu ngi lu laaj bu baax a baax a baax. Mm-hmm. bu ñu nee Mbacke Kajoor na ne Serigne Mamar Anta mm-hmm. waaye bu ñu nee sëriñ Mamar Anta Sali na Maram Mbacke. bu ñu nee Maram mm-hmm. Mbacke ne El seex Cheikh Mbacke. mu mel ne ay sërif àqan lañ. jóge ca ki nga xam ne mooy Ousseynou. Ousseynou waaw Ousseynou nag kenn ku ne xam na ne sëtu yonent bi la. sallallahu alayhi wa sallam. kon ca la gu sell ci lañ jógee. Hmm, seen maam ja nga xam ne nag. loolu de koy may soxna Asi ay dara mii di sët Seydina Mohamed borom bari yor. waaw seen maam ja nga xam ne yu baax yi. seen maam ja nga xam ne. mooy seen maam ju mag ji. nga hmm. moom weesu na Mara Mbacke. Hmm. mooy Alhaji seex Mbacke. mo joge won fofu wi ñu nan fouta hmm. ñew sañ ci dekk bu ñaan Ngeeñeen ca Jolof. Alxaaji cheikh Mbàkke mom mi mom melni ku ñu nan seyd seyd melni ku ñu nan osman hmm. osman melni ku ñu nan Muhammadul Kabir. Muhammadul hmm. Kabir melni ku ñu nan Balla aissa mu ñeek ma. ñaari Balla aissa dafa mu ñeek ma. Balla Aysa moom moy jur maram Mbàkke moy wajur mam maram Mbàkke. mam maram Mbàkke yalla dogal na. bare woon na ay soxna. Mhm. ndax amoon na. Mhm. soxna Farimata Seck. Mhm. moo jur Cerno Farimata. ak Amadou Farimata. amoon na ki ñu naan soxna Aysa Kan. Euh, moo jur maam. Balla Aysa. am na amoon na ku ñu naan soxna Awa Ñang. Awa Ñang ah, moo jur Ibrahima Awa Ñang. Ñang. waaw ak soxna Mbacke Awa Ñang. Ah, bari won na dal ay soxna ci misal suma koy lim man na man na danaka danaka man na jël émission bi. hmm amon nat kuñ nan soxna Busa soxna Busa mo mo jur Ahmadou soxna Busa. Ahmadou soxna bussa ah, ak Sayer soxna Busa. Mhm. waaw mo mel ne doomi mam maram bak lañ. Mhm. waye soxna aïssa Kan. Mhm. bari won nay dom waye bi démé ku ma sam nak danaka day faatu. ëpp. hmm waye démé ba ci muju hmm di mam Balla mam maram bak tuddé wat ko hmm ma balay sa moom yee meññ Serigne Momar ant Sali mhm. moom meññ Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba nag. mi mhm. ngi gana jamono. mi ngi gane jamono. ci atum 1852 huit cent. ci le Serigne Touba jamono Mbacke Bawal. waaye bi mu gana jamono Mbacke. ba am ben benn weer. ci lañ fa ñew dekk bu ñu naan hmm ginaaw ba nak tay loolu du du waxtaan wi dëgg-dëgg. Mhm. taarixu bak deug deug du waxtaan wi. Mhm. waaye nag mënuñu ci ñàkk ndax dafa jaar fofu ndeysaan ci wala mhm. ci la ñëwee dekk bu ñu naan Nja. Nja waaw. wala ba mu fa defé ab hmm yag na ko leral ci sama biir waxtaan. Eh, fekk si ni yaay ju ju naan Ahmadou Bintakan. Ahmadou Bintakan Ahmadou Bintakan hmm ak soxna Anta kan mi jur Mamor Anta Sali. ñoo bokk wajuru góor. ak wajuru bi mu ñëwee Ahmadou Binta Kane ne ko ginnaaw danga yore donga ma yor ko akuk jur mhm. mm, pàkk bi nga xam ne fi la nekk mën naa xaw a xat mhm. daa di ànd ak moom mhm. ndox lu mat kilomètre ak dara ba jéggi aw xur daa di sanc foofee 1852 Maam Mor Anta Sall sanc foofee biñ demee ba 1853 nag dëkk yoy njax ak ya nga xamne ñoko ñoo ko bëggate bu ñu li ñuy jëfandikoo ci xur mhm. naan demal ci xuru wa mbacké ña ah, mo wara mo andi turu xuru mbacké mhm. euh soxna jaara mo melne liggéey ci mhm. yoy ñu doon def ndax 1852 ba ba 63 ko fukki at ak ben la mo melne soxna jaara xuru mbacké fukki at ak ben la fi def Serigne Touba ak jël benam xuru mbacké la ko def mm, fa la nek ba am fukki at ak ben Eh, ñu soog faa jóge dem foofii di Poroxaan mhm. ci biir loolu sax rakk sëñ Tuubaa ju naan sëñ abi bu leexe gane na fa jamono des fa ca tutànk mhm. ñu denc ko foofee ca xuru mbàkke mhm. soxna jaara rootam mu siiw moomee xuru mbàkke la ko daan defee mm, sàkkat woowee nga xam ne yàlla dogal na téye woon na ko fanaan faa tawte xuru mbàkke la amee ndax li indi woon loola mooy. Mm, dañoo jekk ba waxtu guddi ay bu ma ko doon natt. man naa ne ay kasareer. mu xin xin wu metti. Mm, dingaleen sëriñ Mamar Anta Sall na ko soxna Mariama mu a ko Mbàkke mu a ko kaay téyel ma. Mhm. Ah, sàkket bi ma sambaxet bi. Mhm. bi mu ko téyelee ba noppi rek xiinoo sàqi sëriñ Mamar Anta Sali moom dugg néegam mhm. waaye ginnaaw dana koon jàppal te néew ko bàyyil mhm. eh, soxna Mariama moom téye rek ku ko def loon soxna yi soxna téye mhm. mu fanaanee taw ci kawam ba bët set sëriñ Mamar Anta di julli ji mm, gis ko mu taxaw mun ko kiikan kan la mu ne ko man la Mariama sëriñ Mamar Anta Sali tudd yàlla ca kaw ne ko jaaratullaahi kay yow yaa dëkkaaleeg yàlla kon mu mel na garaat boobet foofee la ko amee ci xurum bakke xurum bakke nak 1863 la gent ndax la waralon mu gentit mm-hmm. ab yëngu-yëngu dafa amone ci réew mi mm-hmm. ci digeunte Lat dior ak tuba ba ca kadior mm-hmm. yëngu-yëngu bam ganyawan ñu laalé Lat Joor xex bobé euh tuba bi def renfort mm, biñ ca tégué ab nak euh tuba bi def yëngu di ñëw mm, mabba jaxu comme mo doona almay bi gëna mag dal na serigne Mamar Anta Sali eh, ak ñi mel yow yow mi nek xurum Mbàkke ak ñi melne yow ci wet go gi ci wetu fu waay mën a nekk rek ñëw leen mm-hmm. fii ci Saalum ñu dajaloo doon benn bopp euh, kon sëriñ bi booba la fa jógee mm-hmm. ak sëriñ Mamar Anta Sall ak soxna Jaara déewul nag rakkam jooju ñu moom na denc fa fala fala fala ah, ba nëg ni ma fa waaw ah, mm-hmm. eh, tey sax waxtaan moom du du Xuru Mbàkke dëgg dëgg waaye nag moom bu waxtaan sëñ Tuubaa cosaan mënoo mënoo ca ñàkk tudd Xuru Mbàkke dëgg danaa ci gën a xuus gën ci dugg bu baax a baax a baax waaye tey moom foofu ci Xuru Mbàkke loolu rek doy naa yam ndeysaan ah, ci Xuru ndeysaan waaw mu melni 1863 ci la genton mhm. ñu sancaat ko 18 sancaatu 18 gi nak mom xamna tay du mhm. xat ci émission bi dañ koy bàyyoo benen non ndeysaan ci def directement rek ci waxtan wi ngir ñu mhm. mëna gaaw dugg ci Mbàkke Kajoor ndeysaan ndeysaan ndeysaan waye nak euh, li nga wax ni amna solo lol ndax taris des koy feñal waye wax deug yalla amna solo mais Mbàkke Kajoor manam santi baak ak euh, la fa bàyyi serigne bi tay ba tey tamit Cheikh Ahmad Lamine Bara Mbàkke bo ñu ci mënee indil ay li nga ci mbak Mbàkke Kajoor it li waral santi gi moy Lat Joor mhm. ba mu demee ci Mabba mhm. Maam Mor Anta Sali jóge Xuru Mbàkke mhm. dem ci Mabba tàmbali cinquante cinq tubaab bi daa def yëngu di ñëw bi mu ñëwee fi nga xam ne mooy Ñoora ne day jël si ki nga xam ne mooy Lat Joor ngir xeex ak moom Ma ce que ko ladior Joor ko récupérer ndax ginnaaw. bimi mu mm-hmm. bi mm-hmm. ndax kon da nga jël man. Mm-hmm. ma wad la ba nga set. ngeen tak seen waaye ngeen yi ngeen yi ngeen yi ngeen takk nga teg ko nee. Lat Joor daal di d'accord ak loolu. d'accord d'accord ak màbba. daal jël wérdu bi ko ginnaaw ki mom léegi jël na wérdu tijaane soo ko laalee laal ñu ñu xeex foofe ñu naan paate bajaan dëkk bu ñu naan fa lañ xeexe xeex bu bu metti sax Lat Joor nag dana leen woon tubaab bi ñoo leen dàq xeex gën leen a ñeme waaye dañoo yor loolu ñu naan ay kënu nga xam ne bu tàkkee mënuñu ko supporter ñu ne ñuy def ñu ne def plat de guerre. Mhm. ñu daal di wiiri ca ginnaaw fekk ay garab ñu garab yu ndaw ñu dagg leen bañ toll taxawaay ñu daal leen di kaala daal di jaare ca ginnaaw éliminer ñi nga xam ne ñoo yoroon kënu yi ndax booba kënu téq mu takk amul ci berkela rek nga koy takk bu dawee kënu gi soqi ñu jaar ca ginnaaw daal di éliminer ñi yoroon kanu wi daal di xeex ak ñoom ci paak ak jasi eh, gañe leen ca Paate Badiane mhm. bi ñu demee ba ba ba def ba at ma daataan jeex. Mhm. Eh, di dugg bu ñu demee ba 1866 sax soxna jaar dafa nelaw Poroxaan. Mhm. bi ñu demee ba tàmbali ba tàmbali 1867. tàmbali ba. léegi ci la Lat Joor nag jógewaat foofu Poroxaan. di ñëwaat Kajoor. jógewaat Poroxaan di ñu waat Kajoor. Lat Joor nag bi mu jógee Poroxaan. kër Amadou yàlla ga nga xam ne fa la gane woon jamono. foofa la def directement. est que. bi muy ñëw it comme jël na wér de Tijaaniya mhm. ca miinagu ko bu baax a baax. Mhm. Mhm. ca Maba xam na ne. Serigne Mamad Ansali. maanaam bawal la jóge woon muy xuru Mbàkke. daanaka rek moo Kajoor benn lañ. moo daane ne Serigne Mamad Ansali. àndal ak Lat Joor te jege ko. di ko xamal diineem loolu moo jëlee Serigne Mamar Anta Sali fee nga xam ne mooy Poroxaan ndeysaan indiwaat ko fi nga xam ne mooy Kajoor waaye kon moom mënoon mm-hmm. naa des Poroxaan loolu nit ñi doon war xam la mm-hmm. waaw Lat bi mu ñëwee sanc kër Amar Yàlla mm-hmm. Mamor Anta Sali dafa sanc fu ñu naan Pataar Pataar mooy ca boori Njaañ du Pataar Pataar ca boori Njaañ mhm. ndax sëriñ Mamadou Anta Sali dawul jege Lat Joor comme mhm. ñu bokk benn dëkk daana ko dàndalu mu deedee mhm. un kilomètre ndax buur comme ca jamono yu neexutu dëkk ndax seen i yëngoog seen eh, koo xam ne seexu tërbiye nga sëriñub daara nga mm, doo ko jege yenn jege ndax bokku leen ay yëngu-yëngu waaye daal daana ko dàndalu mat un kilomètre moo tax bi mu sancee kër Amadou Yàlla Maam Mor Anta Sali sanc fi nga xam ne mooy Pataar Lat Joor ba mu fa defee ab diir jóge fa ñëw mar naan mhm. maam Cerno dem naa fa bataay xam naan Jóob mhm. Lat Joor ba mu sancee foofu mhm. maam Mor Anta Sali sanc fu ñu naan gébbal bataay dànd ko lu mat un kilomètre bi Lat Joor foofu nag ñëw sanc fi nga xam ne mooy deqale daal di sancal maam Mor Anta Sali Mbàkke Kajoor waaw noonu la mbir mi déroulé ndeysaan voilà daal di waaw daal di sancal maam Mor Anta Sali Mbàkke Kajoor euh, mu doonoon nag koo xam ne maam Mor moo doon lépp Lat Joor ndax moo ko daan leeral masala euh, maanaam mit daana ko dimbali ci lu bare bare bare bare moom moom moom sëñ Mamar Anta Sali euh, loo xam ne la joor gag na ci wala jaaxal na ko mm-hmm. dana ñëw ci sëriñ Mamar Anta Sali sëriñ Mamar Anta Sali dimbali ko mm-hmm. ci loolu jege woon ko loolu daal man mm-hmm. bu la doonoon ab président. Mhm. Euh, Serigne Mamar Anta Sali mën naa ne. Mhm. mooy ki ko gën a sës conseil. Mhm. loolu ñu naan conseil kon. Euh, moom moo ko doon conseil général. waaw jamono yi nag Serigne Touba. Euh, xam naa ne ay fanweeri atam mëtagul ñaar fukki at ak nangam rek. la la la la yooyu nga xam ne Mamar Anta Sali ci la nekkoon taxoon na. ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci daara ji di jàng. Mm, Mamar Anta Sali féete leen Serigne Touba. ne leen kii Ahmadou mi. ne leen di bindal. te leen di jàngal. Sëriñ Touba yàlla defaloon ko xéewal goo xam ne. Mhm. Eh, képp ku mas a sax. Mhm. lu mu la mas a sax doo ko fàtte. Mhm. ndax boobu mi ngi mi ngi mi ngi na lu nekk ci moom. képp ku mas a sax. lu la mas a sax doo ko fàtte. boobu leer gaa ngi ci moom leer gaa ngi ci moom. ñu tàmbali nag di ko bàyyi xel. Sëriñ Touba di tàmbali. di daw buur yi buur yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu Kajoor Serigne Touba dawut bokk ak ñoom jataay mhm. waaye nag wormaaloon na waajuram sëriñ Mamar Anta Sall mi fi nekk ba tax na lu baree bari moom Serigne Touba bugg koo feeñal bugg ko wax mhm. danaan tekk rek mhm. noonu la doon doxe waaye bi ñu demee ba 1882 ci la Mamor Anta Sali nelaw 1882 ci la Mamor 1882 ci la Mamor Anta Sali nelaw Maam Mor Anta bi mu nelawee. Mhm. ku ñu naan tafsir Ndumbe Marsile. tafsir Ndumbe. bokk ña bokk na ci ña ko taxawee ku ñu naan mhm. tafsir Ndumbe Marsile. Mhm. bokk na ci ña ko taxawe ndax tafsir Ndumbe Marsile ak Maam Mor Anta dañoo doonoon ay ay ay wëlëre yoo xam ne. daanaka sax. kenn ku nekk boo dégg ñun sëñ Bamba sill waaw xanaa mooy ci la ci la boo dégg ñun sëñ nag ci la buubu googu waaw soo dégg ñun sëñ ci la soo dégg ñun sëñ Bamba Sylla ne sëñ Bamba Mbàkke Bamba ab dëkk la ma nga ca Saalum. Mhm. Ahmadou Sall lañ leen tuddee ca bàmba ca Saalum. Mhm. Ahmadou Sall. Mhm. ndax ginnaaw ñoom ñaar bi ñu jàngee Kajoor ba xam leen war a xam. ndax mag ñi xam-xam da leen a jaraloon. Euh, di dox dëkk dëkk. mu mel ne kon waxe yónnante ba. li yónnante bi ne woon xam-xam jar na dox ba siin wala daw ba siin. ñoom dañoo déggoon loolu. bañ dañee demee ci Ahmadou Sall hmm. euh, mottali mottali ko fa xam-xam ba xam hmm. li ñu war a xam hmm. bi ñu del seen kenn ku nekk dangaa ngaa tudde Ahmadou Sall mais doom kii tudde Mamor Ansal tudde Ahmadou Bamba Mbakke eh, tafsir Ndumbe Marsel tudde Ahmadou Bamba Sill moom yi ngay dégg kon comme euh, kooku tamit wala réew Serigne Mamar Anta Sall la woon voilà léegi bi ñu demee doxaat tuuti tamit ba 1883. 1882 ci la Maam Mor Anta Sali nelaw 1883. Mhm. nga xam ne at rek la def. Mhm. ñu korite ba ca suba sa ci guddi gi. Mhm. fekk sëriñ bi daa fatu woon. bi mu génnee nag la ne. saafa ani rasulullahi rabbi asaabika bil himma walaatu rabbi bi darsi ne saafante na ma ak rasulullahi ci lu gént jàkk ak bëti bopp nee na ma bul yamati ci njàng képp bul njàngale képp képp bu ci yamati kon na nga ci ab yar ab yar tërbiya ndax xam-xam bu fekkee yàlla dogal na àndul ak ay ay teggin daanaka njariñ la du bari ndax borom xam-xam ba mul ab yar dana réeral ñu bari ndax day def dara mhm. teg ko ci xam-xam ba pare yar ba mëtewu ko bu ëllëgee gone ko ko gis wala keneen koo ko gis mhm. mën naa jëfe na mu jëfe ndeysaan waaw mën naa jëfe wallaay na mu jëfe waaw loolu nag dama ciy dugatu dugal baytu sëñ Mbay yu mu naan mhm. rikk asal lu mën a xew mhm. awal ndigal te yaru yow mhm. kon da nga làq yépp yiw tey ëllëg maa la ko wax mboolem lu jóg dee si wut yara ko gën gën koo rafet moo jara daw junni beet di wut sëriñ bu la ko jox mu mel ne loolu kon ab yar lépp mooy lépp nit ki bu ko amee am na lépp bu ko amul amul dara moom naan ab yaray tax ñu jël nit ak ko ca kaw waaw waaye ñàkk yara tax ñu teggi nit ca kaw di ko caw loolu tamit ci bëyti sëriñ Mbay Jaxate ci la bokk mu mel ne ab yar daal hmm, lu am solo mooy lépp mooy lépp hmm. yar mooy lépp sëriñ bi hmm. noonu la doon doxe léegi bi mu waxee loolu am na ñu may dégg ñu ne sëriñ bi daa tas daara ja hmm. waaye sëriñ Touba du tas daara day yokk daara waaye du tas daara waaye daa soppi hmm. na na na daara ja doon doxe hmm. ci biir loolu sax ku ñu naan sëriñ ma Massamba Diop Sam moom euh, laata lii di am macha ku bàyyi woon sëñ tubaa xel la ndax ca Mbàkke Kajoor dañ leen daan sas dañ leen daan sas waaye sëriñ bi mhm. yàlla dogal na aw sasam mhm. ah, bu fekkee ca nam meloon mhm. bëgg a bokk téere bi ak melakaan bi mu yoroon daanaka rek nit ñi mën nañ ko njëkk eggal waaye sëñ Massamba Diop da ko daan dimbali ci aw sasam di ko ko bayle ndax dañ doon ku ëggalu sa sas dañ xewlu wàcc la xewlu nañ ba tàyyit wàcc leen xewlu nañ ba tàyyi wàcc leen sëñ Tuubaa ne ko sëñ Massamba Massamba mu ne ko labbayka booba kenn du yoo sant kenn mu ne ko fii day ñu ngi añ dañu wàcc waaye bu ëllëgee fa añ jafee danaa la fa añal kon sëñ Massamba Diop ñi njëkk gëm sëñ Touba la mm-hmm. kon woote boobee nga xam ne yàlla dogal ne sëñ Touba mm-hmm. woote woon na ko sëñ Adama Guèye moom mm-hmm. moo njëkk a joxe boppam mag sëñ Massamba Diop Samb ak man ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon euh, joxe joxe seen bopp euh, d'accord ci lii nga xam ne moom la sëriñ bi kii ña nga xam ne tamit leneen gis nañ leneen loo xam ne moo leen gën a doy ñu dem wuti feneen foo xam ne eggalee nañ ñu eggale fa seenum njàng fu ñu eggalee seenum njàng moom laa woote ku mu doyut bu la neexee mën ngaa wuti feneen mhm. foo xam ne Mm-hmm. da nga fa eggale sam njàng mm-hmm. ñam doy toog mm-hmm. jaayante ak Sëñ Tuubaa ñam doyul dem wuti feneen foo xam ne eggale nañ fa seen njàng euh, waaw lépp Mbàkke Kajoor la xewee eh, waaye Sëñ Tuubaa moom mm, du tas daara boobu Cheikh Ahmadou Lamine gane seegul waaw booba booba se seex non Cheikh Ahmadou Lamine 1891 90 boobu boobu gënagul jamono déedéet bi mu demee kon li indi ngërëm li mooy te te yeewi seex yi mooy bi mu ganee waaw loolu moom Tuubaa la loolu moom loolu Tuubaa la bokkul ak Mbàkke Kajoor est-ce que biñ demee ba 1884 ba tey ci la Cheikh Ibra nag. est rafaal que Cheikh Ibra Fall bi ñu nee ba 1884. ci la Cheikh Ibra ñëw ñëw Mbacke Kajoor. ci la Cheikh Ibra Fall ñëw mbàkke Kajoor. Hmm. Cheikh Ibra bi mu ñëw bi mu ñëw Mbacke Kajoor. Hmm. fekk ne Serigne Touba. Hmm. yebal Serigne aadama Guèye. ak sëriñ Makhtar Touré. ñu yor ay séri ay séri rabb. ak faxay pepp ay faxay pepp. Serigne Touba yónni leen. ca tafsir ndume marsil ne leen bu ngeen demee joxoon leen ma ko mm-hmm. faxay pepp yii ak séeru rab li ndax sama wala réew waajur la woon tey sama mm-hmm. wala réew waajur la woon mm-hmm. fekk booba fekk fekk booba Cheikh Ibra Fall jóge na tay ba xay ndax tay ba xay ak tay ba ndaxaar ak ah. tay ba ndaw ay séenante la. boobu ay ay dàkkantal la maam ay dàkkantal la ay mm. ñëpp maam daanaka ay doomi bàyyi lañ. moom mm, mm-hmm. mm, ay ay lañ. ndeysaan. fekk na booba Cheikh Rafal. ñëw na ci ki xam ne mooy. ki nga xam ne Cheikh Ibra Fall na ci noonu Cheikh ñëw na ci ki nga xam ne mooy Ahmadou Bamba eh, Sall Silla ah, Ahmadou Bamba Silla waaw mi nga xam ne moo nekkoon tay ba xay mm-hmm. Ahmadou Bamba fa la njëkke ci moom fa la njëkke mi nekkoon tay ba xay mm-hmm. fa la Cheikh njëkke Amadou Bamba mi nga moo nekk noonu Amadou Bamba Syll mi nga xam ne moo nekkoon tey ba Ndaxaar mooy mm-hmm. doomi Tafsir Ndoumbé Mar Syll mm-hmm. kooku 1871 mm-hmm. la gane jamono 1871 ba 1884 boo ko calculé da lay jox daanaka ay fukki at ak ñaar euh, jàpp fukki at ak ñett kon kooku xam nga ne mësooragul bay nangu ma kon jébbalu kenn waaye Cheikh Ibra Fall fa nga xam ne fa la demoon njëkke fa mhm. mooy tay ba xay li may wax nii mhm. xay na waa tay ba xay mhm. wala ku dëkk ci tund woowu mm, dana ko dana ko dana ko dégg waaye sëñ Makhtar Touré ak sëñ Adama Gueye ban joxee lii tafsir Ndoumbé Mar Syll ba noppi dañoo wéyal ñoom di majjal loolu ñu naan majjal bi ñu ñëwee ba fi nga xam ne mooy tay ba xay bi ñëwee ba tay ba xay fekk fa ki nga xam ne. Mhm. mooy Cheikh moo mooy Cheikh Ibra Fall. Mhm. fekk fa ki nga xam ne. Mhm. mooy Ahmadou Bamba. sill ma fa nekkoon. ndeysaan. bi nu ñëwee. majjal bi nu majjaaleet. ba tey it Ahmadou Bamba sill moomee. jox na leen aw bëy. ak lenn. ndeysaan cib sarax. est-ce que. leen. ne ko. sama serigne mu naa mu ne ko damaa mhm. mhm. bëggoon nga ñaanal ma dama bëggoon nga ñaanal ma Ahmadou Bamba momé ne ko mhm. té nga tok fi bu féké yalla dogal na nga jang ba xam li nga xam ne moom laa xam wala ki nga seet bo gisé ko maraw allo nga dem fa Cheikh rafal Fall ne ko dangaa gis ma eske ba ma xey la ñaanal ma <laughs> ñaanal ma eske bi mu génnee nag moom Cheikh Ibra mhm. dafa bëggoon a dab ki nga xam ne mhm. mooy mooy sëñ Adama Gueye sëriñ Makhtar Touré waaye ñooñu yàlla dafa dogal mhm. dañ koo dañ ko raw dañ koo raw Cheikh Ibra Fall yëg ci ak garab mooy garabu garabu garabu garab am na ñu ne xay ndax daa ah, baroon a xay yëg ca kaw ba ah, seen leen boobu daa bari xay jamono yooyu waaw ba seen leen soog a wàcc dab leen waaw wàcc dafa yëg nag ba mu yëgee daal di wàcc wàccin wu gaaw soog wàcc. boobu dañ doon séentu. waaw soog a wàcc. parce que bëggu woon ñii rëcc ko. waa bëggu woon ñiy rëcc ko lu mu yëg ci ñoom. waaw lu mu yëg ci ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà mm-hmm. am na nag beneen riwaaya boo xam ne dafa wax ne. Cheikh Ibra moom tay ba Ndaxaar. la fekkoon sëriñ aadama Guèye. ak Serigne Makhtar am na ñu wax loolu. am na tamit ñoo xam ne lii comme ni ma ko waxee nii. am na tamit ñoo xam ne. loolu la ñu wax. waaye ci tënk daal. Cheikh Ibra Fall nee na sëñ Adama Guèye. ne ko jàkk mhm. ne ko sa sa jëmm damay xeexatuk sëñ bàmba est-ce daan ne ko jàkk ba caag mun ko sa turki bii nga sol jiital ko ndax sëñ aadama gi sëñ tubaa da ko joxoon ab turki mu mhm. jiital ko ci biir mhm. Cheikh Ibrahima ne ko jàkk ne ko sa turki bii ndax doo ma ko may sëñ aadama gay gàntal ko mun ko kon nga jaay ma ko sëñ aadama gay gàntal ko sëñ aadama génne ko mhm. lu tax man li ma sol yow li ngay soxla li nga may laaj mu ngi ci biir te la ci kaw laajoo ko mhm. Cheikh Ibra na ko mhm. sa jëmm damay xeeñ xetuk sëñ Bamba est-ce que te boobu mosut a gis gisagu ko waaye waaye waaye waaye lim bi mu leen laajee rek ñu ne ko Ahmadou Bamba ca Ahmadou Bamba lañ jóge ca ca Mbàkke Kajoor ndax bamba booba ñetti bamba yi am na bamba mu nekkoon Taïba Xay mooy ni ma la ko waxee ak bamba mi nga xam ne moo nekkoon Taïba Ndaxaar bi doomi tax sëriñ Ndumbe Mar Silla moom moom laa la wax léegi na am na ñu wax ne mm-hmm. sëriñ Adama Gueye ci bamba sëriñ Adama Gueye mm-hmm. ak sëriñ Maxtaar Touré ci bamba ma nekkoon Taïba Ndaxaar ca lañ jamono lool lool lool siiw na ñu baree bare wax na ko Mm-hmm. waaye Cheikh Ibra Fall ma nekkoon Taïba xay nga xam ne ak Taïba ndaw Taïba kolom ay séenante lañ mm-hmm. eh, Cheikh Ibra Fall dem na ca Bamba moomee est que waaw ah, ca Bamba moomee la njëkk soog a soog a soog a wàcc si ci Bamba mii ndax mm-hmm. Bamba mii nekkoon Taïba Ndaxaar jamono yooyu tafsir ndumbi marsil mi bàyyee mi ngi dund est-ce que faatoogut faatoogut waaw loolu nag ab diggante la boo xam ne ab sew sew la boo xam ne waaw waaw ab sew sew la boo xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu war di leeral la ndeysaan ndeysaan voilà Cheikh Ibrahima ne ko mm-hmm. jigéen de boo wonnee aw lor ba tey mi ngi tontu suñu aadama gi ne ko mm-hmm. jigéen de boo wonnee aw lor doom waaw ku ko gis xam ne doom daa won aw lor mm-hmm. moo tax ma xam ne leeruk sëñ Bamba moo nekk sa jëmm jii ndax jigéen boo won boo wonnee aw lor doom ku ko gis xam ne doom daa won aw lor dëgg la waaye waaye doom mun naa mun na ko damay jàpp ci ba mooy gis sëñ Bamba. Mhm. Cheikh Rafal daal di jox boppam sëñ Adama Guèye. Mhm. est di ànd ak sëriñ Adama Guèye. Mhm. di dox di dox ba jub Mbàkke Kajoor. Cheikh Rafal nee na. maa ngi dégg ci asal. ñuy tëgg naan ku fi njëkk jël. ku fi njëkk jël. ku fi njëkk jël ba ci yàgg ñu soppi tëgg naan ku fi njëkk ku fi njëkk gën. ba ci yàgg ñu soppi ko naan fu waay yem yaa fa yemal sa bopp. naan fu waay yem yaa fa yemale sa bopp Cheikh Rafal daal ne ah doom xanaa foofa kenn dafa nekkul. Mhm. fekk booba ay nit a nga fa. waaye da waaye ña fa nekk ña fa nekk. Mhm. dañoo xamul dëgg-dëgg. ay jàmbaar lañ lool nag mhm. waaye dañoo xamul dëgg-dëgg. sëriñ bi sëriñ Touba. li tax nag xamuñu. dëgg-dëgg sëriñ Touba xamaguñ ko mooy. lii ma lay bëgg a wax. ndeysaan ndax sëriñ Touba daf ne. lil Moustapha nawaytu maayu jaddidu sunatul xaraa wa inni ahmadu. damaa ñëw. ngir yeesal damaa ñëw ngir sof waaye ñëw ma ngir sos dëgg la sunnatoo xabaar wa inni ahmad waaw damaa ñëw ngir yeesal damaa ñëw ñëw ngir sof waaye ñëw ma ngir sos ndax Seydina Muhammad sama sang ba kat bi ko sama borom bindee ba wàccee ko dëru duniyaa bi mu ko fi nammee jëlee dafa tibb ci jëm moom teg ma may ahmadu mu ne ma demal dëru duniyaa mot li lii nga xam ne ci la naa Seydina Muhammad nekkoon mooy lil Mustafa naytu maa yëdd du sunnatu xaraar wa inni ahmad damaa ñëw ngir yeesal est-ce que sëñ Tuubaa nee na bi ma nee diis ci asal ndeysaan damaa ñaatu sama ne ko boole màkk ma wane mm-hmm. ndax su ma demee dëru duniyaa mhm. bu ma nee mana mhm. ku ne ma du yow safaan ba mën na laa ñeel te mhm. yéenewu ma kenn safaan ba ñeel ko nee na sa borom tibbaat jëmmam teg ko muy Cheikh Ibra mu ne ko àndal ak moom wane la moo tax sëñ Saliou Mbacke bi mu fi nekkee di sëñ Touba daan wax Cheikh Ibra ak sëñ Touba. Mhm. Euh, Cheikh Ibra ak sëñ naan la ñaari jëmm kenn. te sëñ Saliou bi mu wax loolu moo toog xalifa sëñ Touba. naan ñaari jëmm kenn moom kon xam na lépp. Mhm. xam na lépp te ku toog ci xilaafu sëñ Touba ge di sëñ Touba sot ju set wicc. Mhm. kon xamoon na lépp. moo tax Cheikh Ibra Fall. daan na xanaa foofa doom kenn dafaa nekkul. ndax Cheikh Ibra. ak sañ Touba fa ñu diggee dafa sore. dëgg la. waaye ñii xëy na ñoom egguñu foofa ndax sa téléphone bii nga yor de ci misaal tey code bii nga xam ne da ko koo côté. ndeysaan. Mhm. Mhm. bu ko nit jëloon. Mhm. ci misaal. dana xam ne tele lii téléphone la dañ ci woote du ci wuyu. mën na ca seetaan nangam. mu xam ko xam gu wër. waaye mënu cee jariñu. dëgg la ndax dañ ko côté. waaye ña nekkoon foofa tamit mënuñoo jariñ sëriñ bi ndax daa am code bu koy décoté. te code bi Cheikh Ibra ko te code bi Cheikh Ibra ko waaye Cheikh Ibra bi ma nee bi mu nee jaleñ. ci biir kër gi. sëriñ Tuubaa daan dund sunna ay yéreem yi mu daan sol dawul dawul dawul dawul laal suuf. Mhm. moom sëñ Tuubaa. Mhm. rido buntu néega bi dawul buubu. Mhm. moom noonu la daan def. ndeysaan. waaye sëñ Adama Gueye bi mu ñëwee Cheikh Ibra sëñ Tuubaa daa xool ci suuf daal di seen tànk Cheikh Ibra sañ sëñ Adama Gueye bi mu ñëwee. daa da koy jox li mu ko yónni woon. wax ko ndigal li. li xew lépp wax ko ci la mu fa jëlee. sëñ Tuubaa daa ko daan na ko anangandal sëñ Adama Gueye ne ko sama taalibe bi. ne ko sama taalibe sëñ Tuubaa ne ko ndax ëpp la. ko de ko de xobu xël la. Mm-hmm. xobu xobu xël la xobu xël ëpp na gëm. xobu xobu xël nag bëgg naa nga leeral ko. xobu xël xël xël garab gu mag la goo xam ne xob gi mm-hmm. day rëy. Mm-hmm. xob xobu mag lay doon boo xam ne moom moom bu ko bu ko bu ko bëyu ndaw mooy bëyu ndaw. waaw waaw ko jéemee sax bëgg koo jàll du sotti. du sotti <laughs> ba tef moom dafa war a yem ci am am ngooñ ak yu see soxan waaye uh-huh. ab tef bëyu ndaw. bu bëggee uh-huh. jël xobu xël ak ni mu toll. Uh-huh. bëgg ko bëgg ko sotti. Mm. moo tax mu ko xobu xël la ëpp na gëm ñu taf loolu waxee wolof la mm. waaye wal ba ndongo loolu. cey boobu xamal na ni ko kii ëpp na la. waaw booba ci baatin sëñ Touba moom xam na Cheikh Ibra xam na. est-ce que. Cheikh Ibra nee na. Mhm. bi ma mhm. nee na Seydina Jibril. Mhm. moo ne kar ci sama kanam dox sama diggante sëñ Touba. daal di daal di nuyu sëñ Touba sujjóot kon nee na Cheikh Rafal nee na Seydina Jibril moo ma jàngal ak taali bi moo ma jàngal ma jàngal ak taali Cheikh Ibra bi mu ñëwee li wax seigne touba moy mhm. seigne touba nako ndongalé ana nga bayiko mhm. mhm. Cheikh rafal nako man day mam jarag wax la bayiko ndere njara wàq. ñu may wax Ibrahima. ñu bari nak dañuy wax né seigne Touba mo soppi. turu turu Cheikh Ibra wi. tudd ko Ibrahima way déedéet. Cheikh rafal Fall naka jekk Ibrahima la tuddu ma sha allah. rakam di ñaan mam salifal Fall naka jekk Saliou la tudd. Saliou ci. Cheikh Rafaal li tax ñuko doon wax yeb sa xànc mhm. mu jigen hmm dafa ban la te yalla bal ma lu am mu dem mhm. mu faatu léegi yeb sa xànc turu ah, dakantal turu dakantal la nga deg turu yàq mbootoog nangam nangam xel yu ondal non dal wa yeb sa xànc turu dakantal wa mhm. Ibrahima ay turu sarax ak yeb dang ko koy waaw loolu moom lañ tëfli ci nopp Cheikh Ibrahima Fall est-ce que wa Cheikh Ibrahima wax touba dana man day dama top tank borom bam sofi yow boo ma wanee fu mu jaar ma hmm. génn abal la hmm. ndax lu dul yàlla uma ci soxla ndeysaan hmm. xam nga loolu dafa rëy léegi léegi léegi léegi la ko nit ñi wax mu kii ne rek waaye loolu kun ko mas a wax soo fit dana dem ndeysaan damaa topp tànk sama borom ba mu sof yow nga wax ko doomu aadama loolu leneen la laa ilaaha illallaah sëñ Tuubaa ne teg daal na ko ñun de xamunu ba xam loolu mi ngi fi noonam déet <laughs> waaye Seydina Muhammad mi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu lépp fekkunu ko fi de ci saayir waaye ginnaaw asamaan si ko doon tiim mhm. Mhm. moo ni tiim mhm. jant bi ko doon tiim moo ni tiim suuf si mu doon dox ci la ñuy dox lool day ñun doy nañu ba lépp lu ñu bëgg mën nañu ko ci am Cheikh Rafal ne ko ñun de ki ni seet bu nu demoon ba fekkunu ko ci kaw suuf ñu ne ñu ab raw doom xabroom mi ngi nii sun pas-pasu leer dëggu xol pas-pas boobee danañ ànd ak moom di jaayante ak moom. Mhm. ba lépp lu ñu bëgg mën nañ koom ci raw doom boobu. ndeysaan loolu nag mi ngi dëpp fukki fan ak ñeent ci weeru koor. Mhm. am na ñu wax ne. Mhm. ñaar fukki fan ci weeru koor waaye ñaar fukki fan ci weeru koor da caa wóor. da caa wóor waaye gisee ba moom fukki fan ak ñeent ci weeru koor la woon. est-ce que. sëñ def dara loo xam ne amul ci ndigalul boromam. mu ne Serapha Ndonga li dégg nañ li nga wax waaye toogal déglu na. ndeysaan ndeysaan sëñ tubaa daal di toogaat juróom benn fan mhm. mu dëppook ñaar fukki fan ci weeru koor di bisub dibéer mhm. fekk sëñ tubaa mhm. laaj na ki mu war a laaj muy boromam ba mu jox ko ci ndigal kon gise nañ lu jiitu gise nañ fukki fan ak ñeent ci weeru koor ci lañ njëkk gisee mooy gise lii ma la wax nii waaw léegi ci ñaar fan ñu waxante li ñuy waxante sëñ tubaa ne ko dégg nañ li nga xaaye toogal dégluñu sëñ tubaa daawul jëfandikoo dara loo xam ne laaju ko boromam ba am ci ndigal est-ce que tubaa juróom-benn fan yi ci la laaj boromam ba am ci ndigal am na ay bis daal waaw am na juróom-benn fan mhm. boo ko tegee ci fukki fan ak ñeent ñaar fukki fan lay doon mu dëpp bisub dibéer mhm. yaa ngi dégg mhm. loolu sax sëñ Moussa Ka ñaar fukki fan ci weeru koor waaw bisub dibéer la mbir ma wóor waaw <laughs> la mbir ma wóor la mbir ma wóor la wóor waaw xam nga wóor na ñaan la mbir ma woon mais la mbir ma wóor mbir ma wóor ci la wóor <laughs> waaw ci la ko sëñ Touba wooye mu ñëw mu ne ko li nga fi doon sàkku kat sa laaj naa ko sa borom ba nangos na ko mhm. Mhm. xam nga li ngay leeral gi dafa am solo voilà xam na ñoom ni ñu koy waxee amee du mbir ma woon de mbir ma wóor mbir ma wóor wóor na léegi waaw tey tey Ahmed bu ma ne loon may ma sa téléphone bi nga ne ma waaw danaa la ko jox yaa ngi may dégg. waaw waaye xam nga joxagoo ma ko. boo bàyyi ba fii suba ci nga jox ma ko. Hmm. wax dëgg yàlla amet tey jii la ma dikk téléphone bi. waaw waaye waaye wax dëgg yàlla. bi ma ko joxee ca suba sa la. ca ca la wóor. waaw ca la wóor ca lool la jubloo wax. est-ce que ne ko ne Sëñ Tuubaa. Mm-hmm. ndax sañ naa laa laaj. Mm-hmm. ginnaaw ba ko Sëñ Tuubaa nangu la. Sëñ mm-hmm. Tuubaa ne ko bisimilah. ndeysaan. mu ne ko ab taalibe ko sëriñam. nun war a mu war a toogee. dëgg la nu mu war a tooge mm-hmm. sëñ tubaa ne ko ab taalibe bi day mm-hmm. wërta jàkkaarloog sëñ bi ne ko jàkk mm-hmm. waaye waru koo sore ba nga xam ne bu ko sëriñ bi doon jox dara sëriñ bi day mel ne lu jóg waaye waru koo jegeet ba nga ne bu ko sëriñ bi doon jox dara balaa concaama taal dal ci taalibe bi da ko war a natt ba mu ngi koy ba mu xam ne tey bu ko sëñ bi doon jox dara balaa concaama tàlli balaa loo xam ne dana tàlli rek yem ci bu ko doon jox dara dafa nekk di yóotu yëpp ab taalibe bi da ko war a natt ni muy toog ak sëriñ benn laaja ngoog mu des ñaar beneen bi ko ñaareel bi mhm. Cheikh Ibrahima ne ko ab sëriñ ndax sañ naa yónni ab taalibe taalibe ba ñëw na ko gisuma li nga ma yónni sëñ Tuubaa ne ko sëriñ ba mat ab sëriñ day mhm. fu mu yónni ab taalibe la mu ko yónni dana xam ne nga fa la <laughs> mu ko yónnee dana xam ne ma nga fa est-ce que loolu doy kéemaan si ñamet beneen affaire la kon taalibe yi taalibe yi war nañoo góor bi ñu waxantee loolu nag mhm. Cheikh na ko lu ma ñàkk yaa ma ko xañ mhm. sëriñ Tuubaa ne ko loo fi amut ci yow la mhm. fi amut la mhm. fekk boobu néeg sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa mattum ngeer mi mu daan taaloo mattum ngeer kenn ku ne xam ne tàkk tàkk li dafa gaaw doom bi day bari Cheikh Rafa li mu njëkk liggéey mooy dugg ci néeg sëñ Tuubaa bi mu bi mu doon bi mu doon bindee ko jàng daa dafa gas gas leeñ mu mag am leeñ mu mag a mag daal di wànq doom bi bi ci newoon ci néeg bi ba mu kii daal di koy suul maasale ko daa di wut suufu ber su weex tàll moom moom Cheikh la mhm. def ci néeg bi mhm. daal di bale kees gi ba mu set wécc mhm. daal di daggal daggal daggal daggal kër gi ay kees mooy kër gi ci waaw ci déedéet kër gi Mbàkke Kajoor lépp ci Mbàkke Kajoor ci Mbàkke laa nekk fa lépp xewe est-ce que ginnaaw xuru Mbàkke moom kii sëñ Touba ci njël benam foofu la njël benam sëñ Touba xurum Mbàkke la mm. waaye yoonu murid Mbàkke ka yoro sosoo est-ce que ñu dagg kër gi ay kees mm-hmm. Cheikh Rafal ne mm-hmm. jigéen ñi nañ féete nii définitivement donte am nañ fu ñu féete waaye dafa am na doxale na fa aw sàkket moom mm-hmm. daal ne donge yi nañ féete ci kees gii taalibe donge yi nañ ci kees gii sëriñ bi bu kenn ñëwati ci moom te wóowu la bu kenn ñëwati ci moom te woowu la la ilaha illallah yaa ngi dégg mhm. beneen bi ci desit bu kenn yëkëté sa kaddu bu kenn yëkkateeti mhm. sa kaddu ci kaw kaddu sëriñ bi kon mi ngi jàngalé war mo mom Cheikh jàngalé ak taalibi deug voilà bu kenn yëkkateeti sa kaddu ci <laughs> kaw kaddu sëriñ bi kon mom moy yoonu babul muridine baabul muridine bu kenn yëkkateeti sa kaddu ci kaw kaddu sëriñ bi est-ce que mhm. sëriñ bi bu taxawatee képp koy wax ak mom na nga egg suuf sëgg tok ndax bul bul bul taxaw ànd ak moom mel na da nga jéem a moom ndaa yi nga xam ne da doon manqué ndox Cheikh Ibra bu guddee bu nit ñi nelaw Cheikh Ibra Fall fanaanee mm-hmm. root mm-hmm. ak a tudd yàlla mm-hmm. ndeysaan néeg sëñ Tuubaa boobu nga xam ne yàlla dogal na matt nee naa la léegi mattum garoon taala Cheikh Ibra Fall daal di dugg ci àll bi wut mattum jalambaan jalambaan nag dafa naqaree gor ndax dafa wow ilaa ilaa mu mattum jalambaan riimale ko ba mel ne aw ab jum liimale mm-hmm. ci lu mat mat bant yu sew mu liimale ci lu mat ñaar fukk wala dara mm-hmm. nga xam ne day mel ne ab jum jalambaane tàkk tàkk la neex na te du gaaw a jeex bëriwutub doom est mu di ko sëñ ne kenn kenn mattoo ko xam mu di ko jox sëñ tubaa <laughs> sëñ tubaa di ko taal est sëñ tubaa sax bu mu bu ko loolu masaan réer wala mas ko soxla da daan wax ana sama lamp ba mhm. kon baatub làmp ci sëñ tubaa la njëkk génne est-ce que ca Mbàkke sëñ tubaa mhm. bu ko loolu masaan réer da daan wax naa ana sama lamp ba mhm. moo tax sëriñ Fallu bi mu defaree jumaa ji col colal ba ca kaw mhm. jël junni def ci poosam mhm. ne ku xam tur bi ma jox la junni boobu junni bari na ñii di wax ñii ñi naan naam ñi naan nangam kenn mhm. xamu ko ci sëñ Tuubaa loolu nga wax sëñ Fallou moom maa ngi koy may eh, ki nga xamante si ni mooy sëñ Jili Abdou Fatah sëñ Jili Abdou Fatah lii ngay wax ci sëñ Fallou moom laa ko may waaw mi ngi waajal bisam bu mag nag waaw ak sa ak sa siyaaral ñu ko baax ñu ngi baax sëñ Jili Abdou Fatah nangu siyaaral baax ndeysaan ndeysaan sëñ Fallou daal di jëlaat junneem daa di dugal ci poosam daal ne kenn kon kon kat fal lu jëlal sa junni ne doxul si sa poos daal di soo ko jox ne kii mooy sa bàyyi si xew kon kon baatob làmp ba sëñ Touba tuddoon sëñ Touba tuddoon bi ko sëñ Fallou di fedd la ci jumaay Touba naan kii mooy basan baay Cheikh Ibrahima Lamp Fall te bi mu koy wax mooy sëñ Touba kon sëñ Fallou da jot ndigal dafa jot ndigal ci sëñ Touba ngir jëfe loolu sëriñ Aliou Fall Mbawar moom Cheikh Ibrahima. Mhm. daal di koy ngénte. caay. ba nii may wax ak yow sëñ Cheikh Fall Mbawar mi nga xam ne moo toog xalifa sëñ Aliou Fall Mbawar. Mhm. ajjuma jot dana toggañ yóbbu ko muy ngénte li ba tey mi ngi dox. est li ba tey. Mhm. mi waaye ngërëm li moom bi Cheikh Ahmad Lamine Baara Mbacke. gane ngërëm li waaw ngërëm li amee. waaw ngërëm li ngërëm li ca la amee. ci Mbacke Kajoor ji bu ñu ko toppee mën naa jeexal émission waaye daal Mbacke Kajoor foofu loolu dooy na cee léegi nag ci 1884 ba tey ca feeba mm-hmm. ca feeba mm-hmm. sëriñ tubaa dafa bàyyi sëñ ibra mbàkke mbàkke kajoor di baayam bu ndaw mm-hmm. mu rafaatale ko sëriñ ibra mbàkke mbàkke kajoor nga xam ne rakk sëriñ mamar anta sali la ñoo bokk waajuru góor mu daal mu bàyyi ko mbàkke kajoor moom sëriñ tubaa waaw daade seigne Touba mom seigne Touba daadi ñewaan ñëwaat mom mi ngi fi ak ay njabotam yi ñi ngi fi daal moy mom seigne sëñ Thierno Galengal ak yoy ci la ci la ah, ci la ci ay sëñ Amar ak yoy ñep sëñ Amar wa waaw ñooñ ñooñ duma bu ci njabotam lañ bok ndeysaan waaw ma ngi ci nuyu bu baax seigne mm-hmm. baram Mbàkke mm-hmm. wa deug yalla diko baax tamit di sëriñu maam Góor Guèye ndeysaan ma sha allah ñoom mm-hmm. ñoom fa lañ bokk ndeysaan waaw ñoom waa Mbàkke jor pi lañ sha allah mu melne ne 1884 jojet bimu daatan jeex sëñ Touba bàyyi fa waajuram boobu di sëñ Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor. Mhm. daal di daal di ñëw mbàkke nag. Mhm. moom moom sëñ Touba. Mhm. bi mu ñëweet bokkam yi nekk Mbacke li mu indi. moom sañ Touba xamuñu ko. moom li sëñ Touba indi. xamuñu ko mënuñu loolu daal. bañ demoon bay jàpp ne sëñ Touba day nit koo xam ne xëy na leneen da koo dugg daal. ci misaal. ba xaw ko mel na lu ko kii daal ci misaal. bu dégg may wax nag da nga xam fi mu bëgg wax waaye foofu doy naa yem su ma junjee dañ bëgg xam li ma li ma bëgg a wax mhm. noonu yi ba tey Cheikh Rafal di wéyal mhm. di ko wuutal mattum jalambaan mi mhm. matum jalambaan moom matum jalambaan gi ba dem àll bi nga xam ne tey mooy Darou Salaam tey est-ce que mooy Darou Salaam gii bi mu gor ba ci yàgg suuf soosu wax ak Cheikh Rafal ci baatin ndax lu sa borom bind boo ko xamee ak boo ko xamul day sàbbal boromam di ko tudd amna nak ñuko mëna xam mhm. amna na ñoo xam ne mënuñu koo xam mhm. ndax annoncé mox téléphone yalla dafa bind way yemalewut ñi dalee na may ñi li mhm. ñeema may leen li lii ce est-ce que sauf ci waxante ak Cheikh na nako fi fii de neex naa jaamu yàlla Cheikh rafal bu mu ñëwé na mam tierno ce mam tierno señ Bamba day day ko xamne señu mako digël señu mako téra waye gis na pak bu lab bu neex a jaamoo yàlla. maam Thierno dem eggee loolu Sëñ Tuubaa. bi mu eggee loolu Sëñ Tuubaa. ne àndal ak Cheikh ra ngir tibb ci suuf sa yéen mhm. ànd ak Cheikh Ibra. Mhm. ñu tibb ci suuf si yët Sëñ Tuubaa Sëñ tubaa dawul def dara dara loo xam ne amu ci ndigalul boromam. est-ce jël suuf si. Mhm. fanaanoo ko def ak moom ab diir. bi mu xëyee daal di woowaat Cheikh Ibra Fall. ak maam Thierno daal di sikku wut de. mooy dëggal na ko. cey maam Thierno maa ngi nuyu baax euh, ki nga xam ci nii. Mm. muy turandoo muy maam Thierno Sani imam mm. ak soxnaam su baax soosu mm. yaa na di ko baax. di nuyu Cheikh Modou Kara Mbacké Norey nii. wax dëgg yàlla di leen ñaanal baax mu mel ne. Mm-hmm. sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëggal na loolu. Mm-hmm. daal di yabal Cheikh Ibra nag Cheikh Ibra di ko gor. Mm-hmm. di gor di gor ba yor yor bu dëgër. sëñ Tuubaa daal di woo maam Cheikh mu ñëw maam Cheikh Anta maa ci nuyu bu baax serigne Sidi alcorane borom jàmm gën. est-ce que. maa ko ci nuyu baax. sangou cheikh Lamine Diouf. waaw sangou cheikh Lamine Diouf di ko baax moom ci nuyu baax. daal di yabal maam seexanta dox ko keul bu def ndox mu sedd. Mm-hmm. Mm-hmm. ak keul bu def gerte. mam mm-hmm. seexanta bi mu ñëwee fekk na Cheikh rafal gor ba ñaq waa ko wër fu nekk. seexanta bi mu ñëwee Cheikh rafal da ko kott. mel ko ko akolat ñak Cheikh rafal maam taq ci yaramu maam sexante moo tax maam sexante boo gisee sañ siidi alxuraan mhm. ak mu kabaroog waa mhm. këram ñu ñu maam mhm. nuru ay baay fall ñaqu Cheikh Ibrahima Fall woowee nga xam ne dafa laaloon maam sexanta ca jot ca ca barab boobee loolu moo def ci ñoom ay jeexantal ndax nitu yàlla eh, ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall mm, fu daraam laal rek dana dana fa def dana fa def ab jeexantal dégg nga Cheikh jël këll bi defoon gerte mhm. daal di yëy gerte gi nga xam ne gerte gu daa jóge mhm. Sëñ Tuubaa ak ndox mi maam Cheikh Anta indi ko Cheikh Rafal yëy gerte gi mhm. daal di naan ndox mi yëy gerte gi naan ndox mi foofee ci Daaru Salaam fa la amee ba gor ba noppee nag ba gor ba noppee ca la fa Sëriñ Tuubaa toxu si est-ce que Daaru Salaam 1886. Daaru lañ ko sant Salaam sëñ Touba bi mu ko sancee mhm. tamit teewul nag muy wër leeru tubaa bi mhm. léeg-léeg mu dugg ci àll bi boobu ñëwagul Touba boobu ñëwagul Touba mhm. maam fi ko def foore bi nit mësu koo moom maanaam Kajoor daa yemoon fi barab waaw waalo yam fi barab Saalum am fu mu jëm Jolof am fu mu que foore boobu Touba nekk foore mbaafar lañ ko doon wax mbaafar comme ni ñu naan alub kañ Touba foore dem baafara lañ ko doon wax kenn mësu ko moom amul ku mën ne sama moo masa moom Touba mhm. moo fa daggal naam biir da doon foore boo xam ne daal mhm. suufu si yàlla tabaaraka wa taala amul kenn ku ko masa moom ndax canton yi ma la wax yëpp mooy Kajoor ak Bawol mhm. Saalum Jolof yëpp dañ fay frontière kenn ku nekk fa nga yem mu des ab ku tumbal nag boo xam ne daa mel ne kenn kenn kii ko muy foore baafara waaw boobu kenn yëlifagu ko waaw kenn yëlifagu ko sëñ Touba nag di dugg foofu di jóge Daaru Eh, di dox lu baree bari mhm. eh, di wéetal yàlla ci àll boobu yi mhm. di gëstuwaale mhm. mbirum Touba di gëstuwaare leerug Touba ba nag mm, ñu feeñu ko Touba nag Touba nag xam naa ni ci la ñuy tëjee ndax émission bi mi ngi jëm ci jeex. Hmm. waaye xam naa ni Touba moom fa la lépp xewe bi sëñ Baara ñëwee foofu. waaw kon sëñ Touba loolu nga may dugal buñ paree rek après waaw bëggoon nañoo kii tamit. mu mel ne mu mel ne. Hmm. Touba tamit buñ goree ba noppi ñu ngi ko sanc comme tënk comme temps day bëgg a jeex. 1888 hmm. lañ sanc Touba. 1888. sëriñ bi biñ ko defee ñaari at nag. di 1890. Mm. dugg 1891. ndax mm. dañu at yi dañu duggante. Mm-hmm. Mm-hmm. diggante boobu daal 1890. Mm-hmm. dugg 1891. ci la Serigne Baara Mbacke gën a jamono borom Mbacke. est ce que est ce que Serigne Baara Mbacke. waajur Serigne Sidi Mokhtar Serigne Modou Baara. est ce que waaw sëriñu sëriñu sëñ Ahmed seen sëriñu sëñ Oustaz Sène. <laughs> est-ce que sëriñu sëñ Ndiaga Sène. waaw dama may naa ko. Ah? <laughs> may naa ko Mouhamed Mouhamed ah. mi nekk Touba. Ah. maa ngi koy may yaayam. soxna mm. Ndeye Kumba. Mm. wax dëgg yàlla di ko ñaanal bu baax baax. sama turandoo yi. ndeysaan waaw may naa ko ndax Sidi Mouhamed lañ ko tuddee. xam naa ne da ngay mm. daal di bu ko defee rek. maa eggale foofu rek boo tënkee foofu rek. ñu daal di gën a kii foofu incha allah. ndeysaan. Mm-hmm. bi sëriñ Baara Mbacke ganee mm-hmm. jamono. Mm-hmm. keroog dafa niis. est-ce que. maanaam su doon ne bépp bépp bépp naaj amut. Mm-hmm. loolu kéemaan la kon sëñ Baara Mbàkke kéemaan lay ndaale. sëñ mm-hmm. Tuubaa nag soog a woo Cheikh Ibra. Mm-hmm. woo sëñ Massamba Diop Sam. woo ki nga xam ne. Eh, mooy mag ña fa nekkoon na daal leen di ñaanal sëñ Ibrahima Sarr ña daal leen di ñaanal. ne leen nag gan gii gën a si ñëw. indaale leen seen ngërëm yéen. est que macha allah daal leen di wàccee. ca wàccee gu njëkk ga. nga xamne Cheikh Rafal ci lako ko yabal ndar mhm. loolu mom leneen la comme comme waxtu da jeex kon kon kon kon ñu kii rek ma sha allah wax deug yalla seigne mamma contane nañ bax ci jotaay bi ñu am ak yow mhm. wa deug yalla yow nga nek ko xamanteni si borom xam-xam la te li ngay wax ni buñ fi togon fi ba ay wër sax jour ñuy def émission du tax mu jeex di contane bax ci yow di nuy bax tamit Cheikh Lamine Diouf diko ñaanal yalla bu baax baax Cheikh Serigne Sidi alcorane mbacke diko ko gërëm bu baax baax di gërëm tamit ki xam ci ni mooy suñu rakk ju baax jooju mooy Oustaz seen waaye tamit di leen fàttali bis sëñ xaadim bi nga xam ci ni mooy bisu sant Cheikh Mat Lamine Baara Mbàkke borom kàddu geeg Mbàkke Kajoor ak Jumaada fële ca caaro yi ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax waaye nag sëñ maam ma xam naa ni moom dina am tàggo bu ta waaye xam naa yemoo ci lii rek de mm. xam naa ñàkku ni am na ci yooyu yëngu lu dul lu dul waxtaan wi rek mm. waaw da ngay ñaan ak yooyu xam naa mm. waaye tamit bu paree nga joxe say say sa numéro. Mm. bu ko defee loolu moom dama la ko may gratuite xam naa ni sëriñ bu mën a ñaan la. Mm-hmm. képp koo xam ci ni soxla nga ko xam naa mm-hmm. numéro yi muy joxe. Mm. ngeen jël ko bu ko defee rek. Mm. ñu daal di tëj jotaay bi nga sant ñi nga war a sant ñoom bu ñu joxee ñu tëj jotaay bi. ndeysaan sëñ sëñ sëñ Amath Sène ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara bu baax a baax a baax. Mm-hmm. soxna si nga xam ne moo moo ne. soxna Asi soxna Asi soxna Asi ay dara borom savon yu yu yu yu savon yi nag tey. savon yaa ngi nii. tey gis nga ko gis nga ni mu ni mu rafetee. waaw moo sponsorisé sama sama émission bi. wax dëgg yàlla savon yu am solo. ca ca ca dégg naa ne fi na bu dee da ngaa ñuul waaw waaw bii comme sama classe gi nii kii bu dee kii. bii de moom xam naa yow moom yow moom bii laa lay jox. ah moom kay moom ah, tuwaarkat la moom kay. yow mën naa booy dem xam naa bii dama la ko dama la ko yóbbaale ko maanaam ñi jot nga ko soxna si waaw ñi man moom bii waaw ñi jot a jaar moom <laughs> na ñëpp ñëw rek waaw ah, xam naa daal ku ko laal ku ne hmm. jàpp naa ne bu nit ñëwoon jógee jógee États-Unis wala mu jógee mu jógee foofu France wala dara hmm. moom jàpp naa ne hmm. jàpp naa ne moom moom doo ko doo ko ñee daal te numéro bi mi ngi affiché ci ah. produit bi mi ngi nekk 78 460 euh, tayan 53 52 ku ko soxla rek bo ñëwé fi ci sen ci télé bi di ko fi fekk xamna ni seigne mam mom xamna hmm. ni ma sha Allah yoy dina bax ci soxna si waaw xamna bu ko défé rek di ko hmm. fekk bu ko défé rek nga nga taggo taggo bu di jeex ta xamna ku soxla tamit seigne mam numéro naka lay def waaw seigne seigne seigne amat yalla dogal na mm-hmm. dañuy waxtane ni serigne bi mm-hmm. di ko waxtaan ci sëñ Touba di ko waxtaan ci Cheikh Ibrahima wala fa la sëñ Mbay Jaxate ak li fi mag ñi bàyyi. ndeysaan waaye nag teewut ñu yëngu ci wàllum ñaan ñu naan ko lasaar. ndeysaan te. Mhm. nga xam ne bàyyiwul dara. nga xam ne moom daa tënk lépp. bàyyiwul dara. Mhm. waaye nag ci biir loolu. Mhm. da yor nañ ay garab bi hémorroïde yor nañ ay garab ah, ndox si yëpp yor nañ ko eh, ak ay ndomba yoo xam ne uh-huh. eh, tull la da ngay ñëw ci émission waaw indi ko fi beneen yoon nga indi bagage yi ñëw eh, sponsorisé émission comme soxna Asi lim ah, def ni waaw la kay incha ah, yor naa ndomba goo xam ne dara buy bu wax lañ koy ëwee mm-hmm. dafa ànd ak tul ànd ak tàkk tul bayra bu ànd ak kaaraange mm-hmm. juróom-ñeent gaw nag lay am mm-hmm. waaw yàlla dogal na moom lasara daal bayiwul dara boobu de boobu topp naa la ci ba sonn waaw moom moom bayiwul bay bayiwul dara tul ak tàkk tul bayra band ak kaaraange ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki ak hmm. chauffeur si tamit day baax ci ñoom hmm. ñi nga xam ne dañuy ay directeur société hmm. wala homme politique yeeg yëpp boobu day baax ci ñoom juróom-ñeenti gaw lay am deru bay bu weex lañ koy ëwee yàlla dogal naa ñi ngi beneen garab boo xam ne moom mën naa ne jawfal fara laa ko tuddee ndax garab boobu yàlla dogal na day dox ci hémorroïde mhm. day dox ci ndoxum siti mhm. day dox ci maanaam yax yu metti mhm. day dox ci biir bu fasu koo xam ne du lekk dal du lekk biir bu day fasu baax na tamit ci jigéen ñi xam ne dañuy def te yàlla baal ma dañu def palanique lu yàgg-yàgg ba pare mm, bëgg am gone léeg-léeg boo ko defee mën na laa indil jafe-jafe garab googu boo ko naanee day raxas sa butitu njurukaay waa boo ko naanee day raxas sa bitigu njurukaay mhm. garab googu ba tey mhm. loolu ñu naan maanaam am saw ñu wax naan ko urine lañ koy xuma mhm, am na ci ñoo xam ne day dañ koy gaawle buñ sawee nii dem sawaat dem sawaat wala am ñoo xam ne dañ koy sorile buñ sawee bala ñoo sawaat kenn xamut kañ la garab googu da koy régler bu fekkee dafa dafa gaaw da koy regle bu fekkee dafa yeex tamit da koy loolu moom may naa la ko léegi joxel joxel numéro nga xam ne nga xam ne daal su ma ko doon topp garab googu daal ku bëgg ma eggaleel la ko daal say boobu ma joxe rek numéro yi mu jokkoo ak yow waaw voilà numéro yi mi ngi nekk 76 76 waaw 319 319 02 02 70 70 wala 77 wala 77 094 094 19 19 41 41 waaw loolu daal mooy mooy mooy numéro ku ci jokk ñun daal am na yeneen ak yeneen yu gën a xóot sax yoo xam ne incha allah bu soobee yàlla loolu moom maa la ko may moom loolu moom maa ko may ak xam ci ni yaa ngi ñëw fii ci télévision RMB TV xam naa ne siyaare nga ñi nga siyaare ñëpp kon bu defee rek dañuy daal di tëj rek ndax ñu ngi moom moom daal sëñ Siidi bisam bi laa bëggoon keer rek na sëñ Siidi alxuraan ndeysaan waaw xam jàllale nañ ko lépp rek moom sëñ Siidi alxuraan dinañ ko dinañ ngi ñu mboolem ku ñuy seetaan daal bayuñ kenn dañuy mm-hmm. dañuy bañ a limaan ndax temps bi dafa sëñ Siidi télé bi téléem la waaw sëñ Siidi moom <laughs> siyaaram bam la diis la mm-hmm. maanaam na ñëpp ñëw mi ngi ko yëgal ñëpp télé bi sax dina ñëw waaw ñëpp hmm. nañ ñëw daal télé bi dina ñëw inshallah di sëñ Sidi alxuraan borom hmm. jàmm gën ñu koy sant bu baax a baax ak mboolem kuy dégg suñu kàddu rek ak hmm. kilifa yëpp bayuñ kenn ndeysaan jërëngeen jëf ndeysaan ñëppay ñëw inshallah jërëjëf euh, ki ngeen amoon ci invité kooku mooy Serigne Mamma di ku baax wax dëgg yàlla ñu gën ko xam maam ma Xurum Mbàkke wax dëgg yàlla nekk ku baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam di la ñaanal baax a baax lépp loo xam te ni waxtaan nga ko fii ci ci ci li nga xam te ni moo jëm ci sëriñ bi yàlla na la ko sëñ Tuubaa fay ci barke Seexul Xaddim di nuyu baax tamit ki nga ci ni mooy président AS euh, ki nga ni mooy mm, suñu xarit suñu soppee baax lool wax dëgg yàlla muy faal njaga yaaram maa ngi lay nuyu baax euh, xam naa ni moom mi ngi ma doon jokkoog man ci téléphone bi waaye maa ngi koy ziyaare baax a baax a baax di la ñaanal yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay damaa nekk ci émission bi nag moo tax waaye ñu ngi lay jéglu baax jokkoo bi di siyaare képp ko xam ci ni yaa ngi caarooy rek wax dégg yàlla ak li ko wër ñu ngi lay nuyu baax di nuyu suñu xarit suñu soppee muy sëñ Mor Ndiaye ñu ngi koy ñaanal baax a baax ak euh, délégué quartier nga xam mooy Adja faat Diop ko ziyaare bax di siyaare soxna Assou Gueye Lo di siyaare kep ko xamni te yaa ci ci dëkk ba nekk mu caaroy di nuyu suñu rak ju bax fi la nek ci kër Mbay Fall muy gorom ñu koy nuyu bax a di di len wax ni gis nga sànce bu yaangi bi ma sol nak gis ngeen ko xamna ni soxna aasi mom dina ko jël mom bi mom wa guy mbind couture ñoo ñaw ku len soxla rek bo ñëwee di ngay da ngay jël numéro bi nga wote ci 77 562 10 31 Touba guy mbind kiti ñoom ñoo ñëw ñëw bo bo ci wootee ci numéro bi di nga fa fekk mbayka ak xale yi yëpp wax dëgg yàlla soxna maam jaara fàttewuñ ñen ñi ngeen siyaare ak móodoo nyep ñooy ñëw ñëw yi rafet yi sha allah kon bu ko defee rek foofu la ñuy wàccee suñu di sant kep ko xam ci si nii rek yaa ngi doon topp jotaay bi seen émission mari jaar mi ngi non bi di ñëw suñu suñu suñu invité dina ñëw bu ko defee ñu ànd ko yow ñu ngi leen jox rendez-vous ba beneen émission bi di ñëw jërë ngeen jëf bamba nasaraan ba wiiri wiiri jinne ya fa ne woon dañoo mujj jébbaloo